ça veut dire que ne si sa continue on, on tend vers une présidentielle est-ce que mbir yi du gën a ñaaw ni ko Bamba waxee ñaaw na ba pare mën naa gën a ñaaw mosuñoo ànd semaine bi ñu créé Yewwi Askan ci nga ne seen bopp yeewee ko guñu ba yeewi si ba yeewi askan wi yeewee ko guñu ba yeewi askan wi démb nag laay soog a jàpp na ñoom ñu ngi soog a yeewee ku ñoom ah yeeweeku nañ fu mu ne nii. waaw ñoom ñoom laa wax de ñoom. ah ñoom seen biir xam nga dañuy yeewee askan bi. ñu ba yeewee askan bi. Ah. ñoom nag démb dañuy soog a dégg naa la. Ah. mooy ànd goo xam dëggu lalu ko woon. démb la dëgg feeñ seen biir. lu golo xam bootee baayam. yeewee askan bi biñ koy sos. dañ koo créer ci période bi nga xam ne affaire Adji Sarr am na. c'était pas une coalition politique. coalition faj mer la woon. Ousmane Sonko avait besoin de l'opposition en l'occurrence Khalifa Sall ak ñi ma àndal Khalifa Sall avait besoin de Ousmane Sonko pour mën a gën a xeex ak Macky Sall ay chemin la dañoo dugalante seen biir xalifa xam na ne boo àndee ak Ousmane Sonko ak Pastef danañ gën a teg pression président Macky Sall pour moom sa candidature Ousmane Sonko xam ne boo àndeek xalifa ak ñu créé xeex bi muy xeex ak Adji Sarr ak état bi danañ si gën a am ndam. ku ci ne da nga sa objectif individuel bien clair précis et net ñoom ñaar kenn ci ñoom faussiwul sa principe xalifa principe am moo nekkoon naa def lu ba bokk Ousmane Sonko principe am moo nekkoon naa def lu tuuba xeex combat aji saar bi ba ñu bañ ma cee taqal pour ma génn ceeg ndam pour loolu nag dafa am ay combat politique yoo xamante ne il fallait que ñoom ñaar ñu séq ko bokk ko ànd ci mais du tey du lu bees askan wi taxu leen woon jóg seen intérêt personnel individuel ma leen taxoon jóg premier questeur assemblée nationale premier adjoint questeur hmm. ñaar yooyu ñoom ñooy contrôler les finance de l' assemblée et le budget de l' assemblée nationale s'élève à près de soixante milliards c' est la première fois yuy soog gis président euh, euh, euh, questeur assemblée nekk un ministre parce que boo demee ba benn moment boo xam ne Yewwi dañoo demoon ba mujj bi les finance de l' assemblée waa bennoo yi ko jiite woon te nekkoon Daouda Dia bi nekkoon le caissier de l'Assemblée mais da doon nekk nii rek figurant la woon parce que amatu ci woon benn mais mise parce que contrôle bi maa amoon doole mais tey jii seen xeex bi ñu xeex seen biir perte na leen trois postes mooy léegi le premier caissier c'est l'Assemblée euh, bennoo la deuxième caissier bennoo la ak yeneen vice président yoo xam ne pratiquement li nekkoon ci yeew yëpp dafa ñëw si Benno Bokk Yaakaar léegi fii ba élection yi di jàll ba parce que mois de septembre normalement dañuy commencer exécuter waaw budget bi septembre octobre novembre décembre ci élection présidentielle lañ jëm instant yi boo xoolee li gën a am solo ci assemblée mooy euh, marché yi nga xam ne moom lañuy ñuy attribuer biir assemblée nettoiement beeg gestion des de rek nangam ak nangam avantage yooyu day wëlbatiku ñëwaat ci APR ak Benno Bokk Yaakaar et c'est bon bonne guerre politique deuxième point ba lii am yoonu président Macky Sall nekku ci mosu see nekk loo xam newu ci ay bukki yu sàngoo dedu gaynde ñoo teg seen i chemin dem ba lëj ci seen biir tey le président Benno Bokk Yaakaar. tey asraeti la tey rek asraeti la. as maa ngi jégalu bul ñëw de. bul ñëw. yaa ngi dégg tey occasion bu benn Bokk Yaakaar am. pour exploiter ko mais da koy jël. oui c'est de bonne guerre parce qu'on est en politique aussi. bu ñu mënoon rendi waa ah benn dañ koy def. Ah waa benn bu ñu buddee warax ah il faut que di ko accepter. ah oui ah bi ñoom seen biir la. parce que waruñu prêter le flanc. ba aujourd'hui benno di ci gagné. parce que ñoom programme bi ñu tagaloon sénégalais yi. ba sénégalais yi voté ba ñu andi ballottage mais il a fallu que lu mel ni am tey ñoo xam ne ñoom seen intérêt crypto personnel lañ doon xeex. koo xam ne il a vécu sa vie politique. Mm. ci ay formation politique ba yegsi fi mu yegsi. Mm-hmm. boo ko parti socialiste bi parti ba mu ne c'est parti de dialogue. Khalifa Sall ku ko teree dem dialogue mais da xam ne kii yow da ngay des da nga xam ne doo politicien. et il a le droit et la liberté d'aller koo xam ne ba nee kaso sax daa dialogue. waaye dialogue sax da koo kaso da koo dialogue. dem. Mm. mais tey bu fekkee Khalifa génn dem defi dialogue xalifa mais n'a pas besoin l'aval. d'un responsable de Yewwi ci li ma jàpp xamul la c'est un leader de Yewwi et il est membre fondateur de Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko tey bu amee prérogative bu muy doxal boo ko neexee am na sañ-sañ bañ a poser question benn. mais ça ne lui coûte moom xalifa ça Euh, en tant que euh, euh, ki bokk ci conférence des leaders mais toog ak seen ses ses ses frères leaders ah ay la yoween man bëgg naa dem ci dialogue bi léegi lu ma fa jëlee man dinaa leen wax. c'est-à-dire ay nit aussi wat gaal ak yëgoo. ay nit bu ñuy ànd dañuy respecté. dama ne Seydina Mohamed ñii rien à Khalifa de faire cela. Seydina parce que tamit biir Yewwi quand ay nawleem la fa nekk de. dama ne ñii waaye nawle ànd nawle amul Yewwi ñii mosuñoo réeroo. il y a Malick Gakou la. Ah, xoolal il tey xalifa moom moom kilifa la fa Ousmane Sonko kilifa la fa. Ah. yeneen leader am na ah, fay kilifa aujourd'hui xalifa lépp lu mu waroon def waroon na ko mën a yëgoo ak aussi yeewi. ak ak xoolal fa la tam fa la yi tàmbalee. dama ne waaw ah. mosuñu riiroo. Barthélémy Dias lu mu wax ba may dem. a réer pour waxtaan ak président Macky ci wàllum dialogue. déggante naa Ousmane Sonko déggante naa Khalifa Sall ñu jox ma aval ma dem waxtaan ak président Macky Sall. mais loolu cap de Barthélémy la dama ne dama ne kenn wet wu ko sa waay gis nga. Ah, Ousmane Sonko na ko dama ne. xoolal fii lu waay neex weddi. loolu Sonko na ko non dama ne xaar moox la. Mohamed politicien ah. moomuñu nit ñi gën ñu ñëw muus ëpp ñu xel ak xalaat dañuy xam dañuy xam ba kenn ci ñoom soxlul sa avalu morom pour dem doxi say responsabilité politique waaye mais euh, wàllu askan wi. au début. bokkoon na ci. wàllu ñoom PDS. waaw bokkoon nañ au début. bokkoon nañ ci bi ñuy sos Yewwi. waaw bañ gisul lu ñu xam dañoo toog. Bougane ba mu ne bëri dugal bopp <laughs> xool gis ne couleur yi teg nañ ko. charte yi teg nañ ko. leader yi teg nañ leen. ñu ne ko dugal toog ci siège bay ci ginnaaw mu delluwaat bopp bi ne leen fii li mu def baaxut. boo xam ne loolu waxtaan ñëpp xëy song ko. Euh, ñun lañu yekk ko buggaan ne ko dëmm nga diw ngay liggéeyal mu jàpp njàmburam tey l'histoire a donné raison à Bougane Gueye Dany l'histoire a donné raison à wàllu Sénégal wàllu PDS c'est un grand parti les politiciens ne peuvent pas être absorbés par des apprentis politiques Yewwi Askan Wi li fa nekk moo dul parti moo dul ay responsabilité très tey boo xoolee entourage ak ancrage politique bi nga xam ne moo nekk biir yi tey bii projet aji Sarr yegsee au sommet ak Ousmane Sonko projet Khalifa yegsee au sommet avec sa candidature et le dialogue ban activité la Yewwi mënati Habib Sy nee na candidat la Aïda Mbodj nee na candidat la Déthié Fall nee na candidat la la conférence des leaders n'existe plus parce que une conférence des leaders boo xam ne Khalifa Sall n'est plus convoqué Ousmane Sonko il n'est plus présent ci réunion conférence des leaders où sont les leaders de Yewwi Askan Wi kan kan lañ fay waxtaanal parce que Abba Mbaye nee na moom il a interpellé Birame du benn du ñaar du ñett finalement Birame Souleye nekku léegi ba leen bëggee bokk ci bureau dama ngeen bindu suma assistant Abba a dit que il a interpellé Abbas Fall Abbas Fall ne ko dinaa woo Birame Souleye ñu régler problème parce que demee nii mais nee na bi ñu ba ci cappaandaw gi suñu lu ñu xam nee na par l'avant de Khalifa Sall Khalifa Sall le a dit que yéen ñëpp bu ci kenn dugg ci bureau parce que comme comme bu fekkee lii la nar a demee ne Mhm. ñoom tamit ñu abstenir nekk ay député simple léegi Yewwi mhm. doxal kartam c' est pour dire que ils ne respectent pas les sénégalais, sénégalais. Alors, ils manipulent les sénégalais tout en se manipulant eux-mêmes te manipulation boobu ñu doon jaay sénégalais yi mu nekk benn rêve de manipulation ba sénégalais yi gëm ko topp leen tey manipulation boobu wëlbati ko daal seen kaw ils se manipulent entre eux pour manipuler les sénégalais ils n'ont pas encaissé les conséquences de leurs actes. alors ci même lignée bi ah, euh, ci pour ñu tàbbi ci troisième euh, euh, thématique bi du du du sori dara ak ñaareel bi mooy ci présidentielle 2024 bi ñu jëm ba léegi gis nañu ne c'est un scrutin Fatou mi ngi koy rappelé léegi bu nga xam ne ku ci nekk am nga chance am c'est un scrutin nga xam ne sans sans favori amul amul kuy favori munoo munoo ay parmi les candidats. mënoo ni kii mooy favori kii moo war a gagner élection parce que tellement l'élection est ouverte et que tout le monde peut être le le cinquième président du Sénégal maintenant alors euh, a vu également des candidats outsiders ñi nga xamante ni nii euh, mosuñoo laale nguur mosuñoo jiite et qui dégage quand même euh, de de très bons profils alors euh, au départ de la course maintenant Serigne laaj bi samp mooy opposition bii nii nii nii nii parce que quand même quoi qu'on puisse dire côté côté nguur gi ñoom ñu ngi organisé wu ils ont déjà choisi am nañu évidemment euh, seen seen seen njiit maintenant est-ce que aujourd'hui l'opposition doit se regrouper en pôle euh, pour se créer des chances à la prochaine élection parce que euh, ni ma gisee tey des candidats de l'opposition mooy ku ci nekk jàpp nga ni tu es présidentiable et que bu nekkul yow mënut a doon keneen ku nekk aujourd'hui yaa ngi demal sa bopp ku nekk gëm nga sa bopp est-ce que aujourd'hui loolu mën nañ ko maintenir dem Euh, ba ba présidentielle bi est-ce que du am jeexital. waaw sur la même ligne ah, boo ma ko permettre tuuti il faut se rappeler aussi que ni euh, taxaw dafa am lu ko boole woon ak euh, waa Pastef maanaam ci cadre Yewwi yi laleen boole woon mooy charte te charte ba ci point des bi man liir naa ko am na lu mu wax te nag bu ñu demee ba am ku wàcc chart bi aussi nañ ko mën a duppee mooy war wor parce que charte bi moo nanguwul kenn si ñoom dem di toog di def ay compromis ak le président Macky li nga wax nag moo doon gën a élégant mhm. mooy que ne Khalifa responsable la xam na politique comme charte tënk na ko itam mënoon na dellu waxtaan ak ñi nga xam ne que ñooy leader pôle leaderu yeewee askan wi. Mhm. xam nga damay wax ni l'opposition sénégalaise bari na lu ñu mënoon a xeex ñoom ñëpp dans leur ensemble ñu réussir andoo ko ensemble. Mhm. tey jii bari na loo xam mënoon naa jàll mënoon mënoon ñoom ñëpp mënoon nañ am chance su mën a participer ci